Sénégal salaamaaleykum mbokki àddina ah ñëpp ñuy béggee site bi ñu ngi kontaan ci yéen bu baax a baax a baax a baax di leen remercier bu baax parce que dañ doon toog di am lu ñu nakay te duñu xam fi ñu koy waxee man soo xoole samay commentaire des fois dama doon naan whatsapp moom waroon na am xaw ma youtube waroon na am whatsapp euh, vocal des fois daal dañuy tànn sax samay samay vocal parce que li ngay bëgg wax yëpp doo ko mën a bind da ngay bëgg wax ko ci sens yi parce que yi ngay seetaan des fois yi gis ñu leen di sant bu baax di kontaan nag ci yéen di ngeen ñu mayee sens bii nii pour ñuy wax tam des fois lu ñu nattale des fois dañuy toog si télé di gis benn affaire xew ñi nga koy seetaan da ciy bëgg a waxtu loo xam ne des fois dëkk bi day dëgër te dëgëraay dëkk bi yëpp lii laa mooy genre yi liy commencé ni génn li ma am naa ngi doon déglu sànq euh, benn audio ci seen site bi benn waaye fi mu daanele foofu laay tàmbali parce que dama ko doon rêvé ma déglu ko mu wax ko li may njëkk a tàmbale mooy ñun dañuy ñaan yàlla ak di ko ñaan tamit kilifa diine yi nekk fii Sénégal dañoo am sens boo xamante ni non ñun néew mu benn dëkk amuko ko bokkuñ ci dëkk yi raw mooy am na ñu mag yu baax yi fii yàlla yu ñu yàlla may fii ci dëkk bi muy prêtre muy muy muy sëriñ si bépp sëriñ nag muy ñoom ñu leen ñaan ngir yàlla ngeen giin toog ci télé ah, toog ci télé yi. ngeen wax ak sénégalais yi ak sénégalais yi muy góor jigéen ci comportement yu jigéen yi solo yi ci comportement góor yi lu ñuy nekk di def parce que tey jii yéen su ngeen waxee ñoom dinañu dinañu dégg dinañu dégg parce que tey dañuy toog di naan Sénégal dëkku diine la ankay dëkku diine la dañuy toog naan Sénégal dëkku jullit la ankay dëkku jullit la mais tey tamit am na seeni nawle yoo xamante ni ñu ngi fi. comprendre nga am na yenn dund yoo xamante ne ñun xamuñu ko woon fii xamuñu ko tey bu ñu demee ba Sénégal tey ay góor di solu comme jigéen toog taxaw ci kanamu nit ñi di wéy man Ouzin lay wax man ba mu génnee tak ak parlement bi dama découragé man li ma njëkk man sama xol fa tàng ci sens yi te nit ñi kaasooguñ ci woon dama dama mer dama mer am na yoo xam ne ñun xamuñu ko woon fii xamuñu ko fi woon tey bu ñu jógee di xas naan ay. ñaata célibataire di compter di lim ñaata célibataire ñoo fi nekk est ce que ñu ñoo ko teg suñu bopp suñu demee nag ba ay góor di sol comme jigéen di xeesal di wax comme jigéen di sinabu ah déedéet ñu xamatuñ ban Sénégal la ñu nekk xamatuñ ko ñun xale yii di dem nii xamatuñu ban Sénégal la ñu nekk Sénégal boo xam ne dañuy toog di tiitaroo suñu sëriñ si man chrétien la man damay tiitaroo ay sëñ Babacar si damay tiitaroo sëñ sëñ Fallou damay tiitaroo sëriñ bu nekk man pour man ñëpp benn la pour man yëpp benn la man damay toog damay toog laala la wax de ne dama wax sama tur xam nga ma kaf may wax ak moom naan ko barke sëñ Babacar si ak ak ak ak njabootam barke sëñ Fallou ak parce que damay xam ni Sénégal yëpp ñun benn lañu donc sens bi ñu am buñ ko yàq ngir yàlla buñ ko yàq ba yeneen réew tey ñu reetaan pour lan ñuy may tubaab yi di gunge ay nit yoo xamante ni ñuy dugg fii si dëkk bi. di def di bëgg ay ay sénégalais di def yi fi góor jigéen pour lan pour lan ñu ñu koy ñu ko ñuy def loolu Ouzin Keita yow bu ñu yëpp feebaroo dara daloo la lu wokku dërëm daloo lax tey boo gisoon dee bi ñëw yow yaay raw la Yacine yaa koy raw bu ñu yëpp may nañ la nga xeesal ñu wax ci nga ne doo ko bàyyi yow lan moo la dal lan moo la dal yow xamee woo seen buntu kër ak mbedd bi ba nga war a a taxaw di sol sa sa yére bi nga xamante ne man jigéen sax man dama ko man nii jigéen du ma ko sol man dama ruslawul man saa yu ma solee tubay damay baraaye ooyu ndaw yi mille francs sama yaram yow ak Pawlish moomu leen ñu te moomu leen sénégalais yi moomu leen ñu de jëndu leen ñu Sénégal la ñu nekk kenn benn nit moomu ko dañ koo bokk mënu leen nag ñëpp ñun ñu nekk si naaj bi di rey suñu bopp yéen ngeen nekk su leen neex léegi bu mu bëggal jotee toroxal jotal yàlla nag boole ñu ñu ñëpp toroxal ñu. moo xam yaa yaa yaa yow yaa sonn moo xam yow sonn léegi ñun daal ñun ñoo àppoo yow torox bi bokk ko ak yéen te ñun ñuy fanaan ak suñuy jëkkër ñeneen di fanaan ak seen i jabar léegi yéen yéen nga xamante ne yéen jëlu leen benn décision lu décision yoon bu bon pour lan sénégale yéen am na ñoo xam ne dañuy favoriser euh, yenn nit ñi ay kii dafa dof sul dof musul dof bañ jëlee xaalis di ko jox dafa jël xammee na xaalis ak këyit bu ñu yëpp yaa ngi dégg bu ñu yëpp moomu leen nit ñi ay jigéen lañu am na yoo xam ne dafa rafetul suñu Sénégal bi rafetul rafetul benn yoon mais moomoo leen ñu ah yéen jóge nañ ci waxu Wally Seck t-shirt yi après ñu ñu demaat ci Ouzin Keita après suba fa lañ jëm jóg leen nag balaa muy balaa muy naaj jóg leen kilifa yi nañ jóg wax ñu war a dox dox lii wax ci parce que ñun xamuñu woon lii man nag man góor su ma waxee ma toppandoo ma sax. nga jot sama xol loolu moom yàlla ni may waxee sa xol la yàlla daf ma may loolu am na yoo xamante ne duñ ko nangu te duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba bu ñu yeb Ouzin Keita yoroo 1000 francs yu mën a feesal si sees yow ñu la jiitu si wéy bi di wéy yi nit ñi di dégg sax jëluñu si sees yow nga dem jël ko nga foog na yow nit ñi dañoo def wala yow yaakaar nit ñi bu ñu añee du ñu ndékki yenn yenn sites yi nag yéen yéen la ñuy waxal gis nga yéen bu leen ut buzz wala di ut lu neex seen sites yi wala ngeen bëgg avancé ba boo leen jógee yow mboot bu jóg ngeen jox ko micro kañe bu jóg ngeen jox ko micro yi bu leen ñu sonal ay ñoom kii nu mu tudd woykat bi nekk fii nii nu mu abu ci baloo ñu ngi fii de de jox leen seen micro ñu wax lu leen metti wala ngeen lacce leen fan ñu toll seen musique ay alimbay ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi fii ñu war a avancer dëkk baa ngi fii mais pas ngi jël Pawlish jël kii nu bi tudd yow Ouzin Keita jël keneen kii fa waa jooju dër boobu te bokkoon si théâtre euh, buur géwél ñooñu lan lañ fi woy ñooñu lan lañ fi woy ñooñu même suñu doom yi sax laala bu ñu ñëwee duñu déglu seen i musique duñ ko déglu ñun ay Youssou ay Thione Seck ay Omar Pène yooyu noonu ñu yàgg yooyu ñun ba tey dañ koy fecc te fekkeewu ñu ko de mais ba tey ñu ngi koy fecc que li ñuy wéy dafa am sens mais mënuñu jóg tëggkat bu jóg yéen da ngeen fi boo xamante ne yow muus bu jóg taxaw ne leen man ba pare lu ma ci gën a nakka yi mooy kat yi ñàkk fayda sécurité bi noo doo comprendre xaalis fajul dee mais faj na gàcce dëgg la mais am na yenn gàcce yoo xamante ne ñàkk sax moo ko gën parce que tey lu grand boobu wax tey si site bi dëgg la de ndax tey jii dee am na dund am na dee am na dund am na. te tey Ouzin Keita boobu noonu bu ko yàlla jëloon tey ga dégg Sénégalais ay waay moo fi wayoon lii ay waay moo fi def lii ay waay di ko xool di ko seedeel yi nga xamante ne si bëtu Sénégalais yëpp ñu gis nañu comportement am pour lan pour lan ñun. sànq film euh, Moïse laa doon seetaan pourtant yow yàlla da leen sonal te am na benn moment boo xamante ne ba gars yi weddee waxu yàlla gis nga Moïse lu mu wax te dañoo xeex rayante dañoo gën a bëgg yàlla sunu bopp ñun ba tax na yow léegi yow soo waree dara waa Sénégal dëkku yërmande la dëkku léegi loolu ci yërmande boobu noonu wala ci dëkku teraanga boobu noonu ci moom la ñuy nekk di avisé wu di dof dof di dof dof di màkka ban dëkk moo ko gën a sell fii màkk màkk bu meloon ni bu doon màkk fii grand la wala fenn est-ce que ñëpp ñun sax ñëppay dem mais sellaay bi ak ku fa wàcc mais lan lañ fa wax lu ñu wax boo sàccee ñu dagg sa loxo ñu di def lu yàlla wax santaane lu yàlla wax léegi ñun ñi ñuy jaay lan ñun ñooy jaay lan yërmande ñun dañ leen ñoom ñun dañ leen gën xol ñooñu yoon di dagg loxo loxo nit ñu ko fa sàcc bu leen ñu yëpp dañoo son si wax góor jigéen dëkk bi dëggan amul xaalis da ngay xëy loo liggéey fayee ko oto da ngay xëy xoslu bay bëgg a dee yore famille doo xam li ngay liggéey fan la ndax lan mbugalu yàlla pour lan dañoo sonn moomu leen ñu da ngeen liggéey ñafee comme nit ñi gañe seen vie da ngeen di gañe seen vie comme nit ñi ngeen liggéey mais pas ngeen yéen ngeen def lu leen neex après ñun ñun ñoo koy subiir après ànd seeg yéen quoi maanaam bu yàlla di àtte du ber et pourtant mu ngi gis de gis na ñu koy def mais ñun ñi waxul moo moo tax mu boole ñu ñëpp def ñu noonu. dangay xool Sénégal bu njëkk da nga doon dox di faru ay téeméer ay mille francs xoolal dëkk bi léegi fépp karo la maanaam fépp a woo doo dox ba far dërëm bu dërëm bu bu yàgg sax doo ko gis ci suuf si ndax lan seeni jëf ah amu leen xaalis ba moo tax ngeen dem war a jëlee ay xaalis ñoom am zozo ay ñoom xaw ma genre yooyu noonu boo waxee kii des na kii boo waxee kee kii des na kii yoon ñuy wax ci wàllu seet noppee gu u usee te ñëw gën a ràngatiku moom gën a xamal ne man xoolal li jëntiwuma leen lii laay def ndooy ndooy nam ñu ngeen jégal ma a la de waaw mais ba mu fi tooñee Balla Gaye dañ koo wan yoon léegi pourquoi Ouzin bii lan moo ko manqué mu ngi dox mu ngi fecc mi ngi yuux li tëb dafa dof mu xam wëy li muy wax déggu leen ko ay Ouzin say cinéma la daf may reetaan loo dama ko bëgg ban fans Ouzin lan fi wëy lu am fans ban wëy la fi wëy lu muy amee fans Sénégal mooy fekk kuy départ mu gën koo yóbbu gis nga Ouzin da ngeen ko dof da ngeen ko ji dof muy dof dof defaale lu ko neex ci ginnaaw dof bii bul ñu yeb bu ñu fontoo xeesal rek dafa doy ci góor nga koy gis yow on dirait que am na benn photo bu ñu ko posté da nga maquillé pour lan yow da da nga ñoo moom yow Ouzin moo ñu dara dalu la laa wax xam nga bu baax li ngay def ya gën xam li ngay def xam nga ko de xam nga ko bu baax ñun nag yërmande bi dafa doy parce que dañoo sonn mënuñu di golo di béy baabul di dundee mënul nekk. mënul nekk bëgg xaal ñoom titi yi ngi fii ñoom fi ay ñoom yi suñu da nga leen mës a dégg si waxu góor jigéen da nga leen ko mës a dégg mais mbal bu jóg wëy mbal bu jóg wëy da ngay déglu déglu ba doon affaire doo xamante looy déglu moomu leen ñu yenn sit yi tam yéen bu leen ñu bu leen ñu sonal nekkul ku jóg ngeen ut ay bës di joxe fi sonn ngi fii dugg leen ay yeneen yeneen dëkk yi ay caaroy ay ay pikin ay yenn côté am na maire yoo xamante ni mais dañu sonn dem leen ngeen dékk ñun seen micro bu ko defee borom xaalis yi gis xam ne kat ñoom ñi ñu ngi ñu dundee ndawal mais am na ñu ñoo xamante ne bu ñu bu ñu naanee ndox dañuy tëdd au moins ñu xam ne fii jàppalante moo fi am mairie jël ay Ouzin Keita yoo xamante ne dañ leen di may xaalis bu yaxtaal ñoom ñiy dund riche si kaw nit ñi après yéen yéen la Ouzin yow bu ñu fontoo dinaa la ko waxal bu ñu fontoo fii dëkk bi ay affaire góor jigéen du fi am jigéen nag jigéen sax du fi am góor jigéen fi am góor jigéen la yàlla wax ngeen sëy góor ak jigéen xanaa di fanaan ak sa jëkkër sax dafa neex waxtu ma la yow góor dina tiim nga mel ni xar xanaa xar yi sax dañuy xar yi ji góor jigéen ñooy sëy tee ngeen taw jigéen ñi sëyuñu ndax góor a góor fu ñu demee bay sëy ana góor jigéen ñi fu ñu jëm mais jigéen dañuy obligé nekk jigéen ak jigéen yàlla santaanewul loolu na leen delloo xel yi ci yàlla te xam ne yàllaay njëkk te yàlla yàlla muy mujj nit ku dund nag di nga dee te ñaan nga yàlla ñu waxal la lu rafet ba mu topp la fi jëm ba mu topp la fi nga jëm bu la ñu fontoo yéen ñi nag yéen ñi jox euh, Ouzin Cissé bii sol ba muy dugg gis ngeen ko yéen sécurité yi man ba ngeen demee ba ne ay sécurité ngeen nekk ay góor toll nu leen neex boo leen gisee Ouzin Keita wàcc ak garaam bu boom moment boobu ngeen ko waroon yenn daw ak moom ba fu mu toll ngeen yëkkati ko ne am yàlla yàlla ne déedéet ngeen teg ko ci suuf bu ngeen nee da ngeen ne góor alal bu leen jaral yéen yii parce que tamit gis nga mbugal bii nii du ñun doong de du ñun kese ñoo koy subir de da ngeen ko def seen bopp fecckat yi yéen ñi xam nga lu gën a bon nga fecca fecc fecc fecc fecc fecc ba xëy retraité ndax léegi moom 40 ans nga doyal sëkk ci àddina 40 ans doo yow li ngay dese du bëri xam nga fan ngay mujj di def ay ay émissions yi ñàkk fayda moom ngay mujj topp ci ginnaaw moom ngay mujj bu ngeen demee ba feccale ay ay Ouzin Keita yenn yi jigéen yooyu lijjanti woo leen jëkkër moo tax Ouzin Keita tamit mu ngi noonu ci yooyu lay mujjee ci yii lay mujjee yéen ñi koy tëggal yéen ñëpp a yem ku ci nekk waroon nañ la tëj ay deux ans ki trois ans ay quatre ans Ouzin nag moom boo leen ko ñamoon benn vingt ans fàtte ko tuuti dina xam ne àdduna bi ñun moomuñu ñun dañuy dund pour yàlla mais dunduñu pour moom mi mu ñuy indi ay musiba fii nii góor jigéen na yem ci dëkk yi ñu ko xam ne ñun xamuñu fii góor jigéen sëriñ si nag jóg leen ngeen wax jóg leen ngeen wax ñun yàlla yéen lañ ñu booleel jóg leen muy sëriñ bi muy prêtre jóg leen ngeen wax toog leen si télé bi si tii ñuy ni ñuy tàllalee micro ñee ñooñu leen leen war a tàllali micro ngeen wax li yàlla santaane ci waxu góor jigéen leeralal ko gars yi ñu xam ko parce que ñun tamit yàlla loolu la leen bàyyee ak ñun xamuñu daal li ngeen xam ak lu leen yàlla may loo moo yàlla bàyyi ñu ngeen gën leen ngeen gën ñoo jàngal àddina bu leen toog di seetaan ñii ñu nekk di def lu leen neex di def lu leen neex gis nga kii Ousseyn bi bu leen boo leen ci waxulee xoolal keneen yi ñëwaat sol baa sol def gërëfaas bi romb te du mujj fenn du mujj fenn comme jóg leen. merci jërëjëf maa ngi jéegul ci kàddu yi maa ngi tam ci waxin bi mais dafa métti rek